ant bi mi ngi ci jàmm te dañ ko may jàmm bàyyi di wax ci moom saa su ne mu yokk ci ne moom mi nga xamante ne moo newoon élève bi gën a xarañ ci Sénégal ci atum 2018 ak atum 2019 bés dina ñëw dina leeral lii yëpp lan moo ko waral réer gi mu réer kenn gis ko mu yokk ci sax ne jaari sow mën naa am lii yëpp waajaloon na ko depuis ay fan wala ay semaine ni ko nit ki nga xam ne moom la fësal ci roman bu njëkk bi mu génne tuddee ko sous le visage d'un ange nit kooku defee woon na di roman boo xamante ne génne na ko ay weer a ngi nii moom jege ñaale jaari sow xam ne tamit ne xëy na dogal bi jaari sow jël réer meeng kenn gis ko mën na laale tamit ak génnuk àdduna ah, papaam ci weeru avril bi weesu di génn àdduna boo xamante ne nee na bett na ko lool te metti na ci moom lool ndaxte nee na jaari sow papam xaritam la woon rax si dool tamit ku xamoon biiram ak biteem la bi mbir mi tàmbalee ba léegi nag ñu yor enquête ba ca France ak kilifa yi toogal Sénégal ca bitim réew doona mës di wax ne Diary Sow mi ngi dundu te nag nekkul ci danger moom étudiante sénégalaise bi nekk élève ca classe préparatoire ca lycée Louis le Grand bu Paris réer ñeenti fan ci weeru janvier ba léegi kenn gis ko di lu nag lu jur njàqare gu rëy ci njabootam nga nekk ca Malicounda ca diwaanu Mbour waaye tamit ci askanu Sénégal gi yëpp